Yeah yéen a mën a soppi seeni melo mën la jikkoy kakataar fu ngeen gisee cash money ku ne ma ngi wane woo ko feeñu di wut lu mu seeñu ci ëxlu kàcc maani ci kaw la ñuy gore mais ci suuf la ñuy ware fu ñu mare gis petit wàcc naa royetuñu gàtt ji ko maam riba rii baa mooy duufa lekk noom yi intérêt rek mooy dox ci jaam yi boo yorul mu ni loo leen wax ñu jànni xar fa xuufa la ñu doyloo yàkkamte wërsëg moo ñu moyloo daay bi jàq-jàq yee ko taal mais tawul suñu gëma dee ko boyloo fii lañ woote nit warul reew fii lañ woote nit warul beew fii lañ woote nit ki say dëkk doo bi buy yuuxu wàllu xelul teew xanaa seetlu woon seen koñ xeebaateeg tuuma jàpp na leen poñ ñi fa gën a néew doole rek la ñuy ber di leen toroxal naan dañ leen i tooñ ñu yor kees moo ni ñooy njiit tax surga yi topp leen di leen mbiib léegi ñu ngi kaala woo ko sol kos door marto jàpp teeg yeneen diib mu ni moo ñu xañ suñuy unité ñu jaay suñuy dignité ci tolluwaay poche la ñuy xaymaale ñuy léegi am nañu sympathie sàcc yi riba la ñuy cemp ci jàkk yi léegi loser sax su ko mu ni feeñoo day mujj doon cemp ci jàgg yi yéen eh, fa taajo bro

léegi am nañu sempati sàcc yi riba lañuy cemp ci jàkk yi you know gars yi ñuy sàcc mu leer nañu dañuy sàcc ñu kepp leen da leen di gis après ci kilifa yi wala ñu leen di ñaanal njekk wala ñu def leen ay héros xam nga te loolu ñu sàcc noonu mooy li waroon yembal dundu gaa yi amul dara ko am nga xam ne jàpp ñu si dara amuñu xam nga accès à la santé amuñu ay ambulance ñu ngi matu ci hôpitaux yi xam nga whatever man ñu ngi dund affaire yu bari ci àll bi ci bay bi yi jaar ci géej gi di daw parce que précarité bi dafa àgg foo xam ne àttan duñ ko you know et euh, léegi askan boobu sax muy wëlbatiku am sympathie ki leen teg ñi leen teg tooxi euh, doona yooyu noonu comprendre nga leen ñaaral njekk wala ku dal seen kaw sax même gars yi ñu ñëwaat dal sa kaw saaga la te ñoom lañ sàcc ah, ñoom lañ gën a rendre précaire seen situation comprendre nga moo tax may wax am nañ sympathie sàcc yi riba la ñuy cemp ci jàkka yi léegi loser su ko mën yi feeñoo sax day mujj doon cemp ci jàgg yi eh, you know respect maa ngi tuub ba noonu la fa taajoo maa ngi tuub nag de <laughs>